di jiital ci nuyoo bi Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké mu Ibnu Cheikh Mamadou Bachir ak njabootu Serigne Touba gi nekk ci dëkk bi yëpp ak tund wi président digal nu ni su ngeen demee Touba na ngeen ma nuyu te ziaral ma Serigne Cheikh Abdoul di xalifaam ca ànd ak moom ci bis bi di barkeelu it ci bisu Serigne Abdoul Khadr sëriñ Abdou Khadre Mbacke it doonoon xéewal ci lislaam ci ñun jullit ak mu yi nekk ci biir Sénégal ak réew kenn ku ne xam nga histoire bi sëriñ Abdou kenn du ci delsi président de la république nee na mi ngi lay nuyu ca di la ziar ca di la ndokkeel di waat nag digganteem ak sëriñ Bass Abdou Khadre mi toog ca di ko sant bu baax ci taxawaay bi mu koy taxawu guddi ak bëccëg ak liggéey bu rafet bii muy liggéey ci diine islaam di ko liggéey nag fii ci kër Serigne Touba ci wetu Serigne Mountakha taxa na mi ngi koy rafetlu ca dila la sant cee ñaan yàlla sunu borom yàggal la fi. dila la wax nag yaa njabootu Serigne Touba gépp ni le président son excellence Macky Sall yaakaar na ci kër gii ci Serigne Touba ak njabootam. ak ñaan gu muy defaroo àdduna ba àllaaxira di jiital ci ñaan gi nag nu ñaan ko yàlla réew mi di Sénégal sunu borom wàcce fi nawet bu jàmm bu gaaw ca neex ca nawet bi na ndox mi bari waaye bu mu yàq dara ci réew mi nee na man mii nag di Abdou Karim di taalibe ci kër gi bi may tuut tànk di jàng ba nëgëni bi ma noppee yónnentu président de la république nag maa ngi yëkkati sama kàddu bopp di delluwaat di ziar bu baax sama sëriñ sëriñ Bassirou Abdou Khadre di ziar waa kër sëriñ Abdou Khadre gi yëpp di fettaliwaat sama laxasaay ak pas-pas bu rëy bi nga xam ni moom la ñu liggéey ci liggéey bu rëy bi ci kër gi sëriñ Bass ah, monsieur le ministre nee na mi ngi lay seedeel ni cofeel gu rëy gi mu am ci yow mi ngi koy fettali waxtu wu ne ñaareel ba nag nga doon exemple ci ñoom ci nit di war a ànd kilifa nii ñu la gisee nga am pëstéef amuk taalibe laxasaayu ci gannaaw xalifa général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla dogal it nga wàññee ci désintéressement te di ci sonn loo am def ko ci biir yoon wi te seetu la mukk ci mel ak ku ci bég li la war rek yaa ngi ci di ko def boobu engagement ñi ngi la ci sant te di ko jàngaat nag ci yow di nuyuwaat mbokk yi fekk yëpp nag di famille si sëñ Sidi Ahmed Sy ngi nii toog ñuy daje man ak moom ci xew-xew yu bari muy def ay waxtaan ci lislaam di waxtaan yu am solo nga xam ne waxtu wu déggee kàddoom rek xel yëpp dem ci Alaaji Abdoul Aziz Al Amin way juróomu tedd wa di nuyu nag la famille Kunta